bu baay sama xarit jàppante mu dëgër ñu songa noon booy ware suñu bëggee Sénégal tinki réew mi naat bu ki sandu ba mu bëggee wut na mu ndawaloo dafa mu boo teeru ngir mun a fàdd béyi ndu

mais dara sotti nous avons un gouvernement boo mais c'est des dictateurs ces gens-là il faut se battre avec eux voilà c'est comme ça cooki. li ñuy laajte li ñuy ñaan daal mooy courant bi moom dañ ko courant bi dañ ko wàññi dañ ko war a parce que troisième âge yi bon ñu suñu doom yi liggéeyuñu suñu doom yi actuellement liggéeyuñu waaw ah, troisième ñu ñoo yore kay suñu doom yi liggéeyuñu te troisième âge yi sax de la fonction publique ñi boole FR depuis qu'il est là les pensions n'ont pas bougé dans Yota il il augmentation mais il fonds national de retraite depuis que le président Maxal est là nos pensions n'ont pas bougé dans l'OTAN. chaque vendredi ñu Nous, nous Nous sommes nous ñu nous il faut se battre avec lui et son gouvernement. que Sénégal ñu war. L'époque, c'est quand même te dina fi dina fi jóge voilà c'est tout. dama ne. doomu réew mooy tabax réew ngor mooy faj gàcce. doomu réew mooy tabax réew ah au lieu ñu encourager les initiatives nationales il faut promouvoir le capital privé étranger au détriment des initiatives nationales. dama ne ku munul toppatoo ngunu ganaar. quand on est incapable de gérer un poulailler. je vois mal qu'on veut diriger un pays.